ci wàccaayu bis bi nga xam ni bisu Cheikhul Khadim la xam nañu ni yoonu murit benn bis gënalu ci Sëñ Tuubaa bis bi ñu doon woon muy màggalu Daaru Xudoos gi benn bis it gënu koo màgg benn bis it gënu ko cee rëy ndax Sëriñ Tuubaa moo ñaanoon fii ci boromam ci njaareem ni sama borom maa ngi lay ñaan bis bi gën ci samay bis mooy bis bi nga xam ne damay daje ak yow te bis bii la Serigne Touba daje ak si eh, ak suñu borom subhaanahu wa taala ñibbi Touba mu dénkoon Cheikh Moustapha itam dénkaan yu bari la ca gën a ko mooy mu waajal ko ba indi ko Touba na mu ko bëggee na mu ko santaane digganteem ak moom la woon mu def ko ne ko Serigne bi bëggee woon. Cheikh Moustapha ci boppam bi njëkk wut Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu nga xam ni Serigne Touba daa bëggoon ñaan waaye lim bëggoon lépp ak lim ni sa doon lépp. Cheikh Moustapha moo ko ko taxawal moo samp yoon wi moo ko organise moo taxawal kër yi moo ko dundal kenn ku ne xam li mu def itam ci li ko sëñ Tuubaa dénkoon ci jubaayam ji ak ci dëkkam bu sell bi ba ci ngasum raay bi loolu lépp moom matale ko moom Cheikh Moustapha du def dara itam du lu ndigalu sëñ Tuubaa ginnaaw sëñ Tuubaa moo sàkk ñaanal boromam ni ko dama lay ñaan bis bi gën ci samay bis mooy bis bii nga xam ne ci laa daje ak yow ñàkk lu mu ci wax Cheikh Moustapha ñu donte ñun duñ ko xam moo tax Cheikh Moustapha am sañ-sañu woote màggal sëñ tubaa gi bis bi sëñ Touba ñibbee Touba di ko woote ci Touba am lu mu ci wax itam nag lim ci waxoon mooy képp koo xam ni ñëw nga fanaan si tubaa ci bisu màggal boobu ma ngi ko dégg sëñ Abdou Sibara ci weyi màggalu Daaru Xuddus gi mu wax ko nee na bis boobu képp ku fanaan si tubaa di nga set ci ay bàkkaar ba mel ni bis bi nga ganee àddina ndax malaaka yërmaande yi nga xam ni dañoo gunge woon ku tedd ki dañuy faransi di saafonte ak nit ñi malaaka yi bis bu ne dañuy wàcc waaye firnde bi ñu am mooy bi ñu xam ni day wàcc wàcc gu wér cëng ñu am ci yàqin mooy laylatul xadar bi yàlla wax ne tanazzalu malaa'ikatu war ruux fiiha waaye mosu Moustapha waxaat ñu itam ni bis boobu malaayika yërmaande dañuy wàccaat kon am nañu yàqin ni bis boobu malaaka yi dañuy wàcc moo tax ku fa fanaan yàlla faj sa aajo ba noppi yàlla seral ci ay bàkkaar monsieur le gouverneur loolu mooy màggal gi Baye Ahmadou Makhtar nag woote ko ñun nag duñ ñëblu ay wax dëgg duñ ci maslaa gis nañ seen taxawaay bu baax kenn xeebul li ngeen ciy def itam ndax umpule wuñ woon ni suñ ñëwul woon fii itam lu ci war di ngeen ànd ak chef de service yi taxawu ko ba lépp mat waaye dafa am ay màggal yu ñuy seere Touba yu ñuy fekke Touba ñu koy xool di ko fekke lañ ci gis lañ fay def ñun màggalu sëñ Bara gi nekk Mbàkke Kajoor ñu gis lañ fay def waaye bu ma xoolee kayit bi nii ci wàllu hydraulique bi xeebuñu lañ fay def waaye suñ ko mën a yokk ñu yokk ko ndax bu ñu nee ñaar fukki bâche wala waaye yaa na loolu la ak juróom-benn seetal ñun Mbàkke Kajoor fukk la ñuy jox fukki seetal la ñuy jox ak 60 bâche te xam ngeen ne Daaru Xuddus waa kër Cheikh Moustapha yi amul kenn ku fay woote geneen màggal seen lépp dañ koo fam tënk ko ci màggal gi kon màggal gi gëdd bi nga xam ne moom la am dayo bi mu am nañ ko jox dayo boobu waxuñu ñu joxee su ko waaye luñ ci gën a mën a yokk ñu yokk ko ba mu méngoo ak yi nga xam ne màggal doomi Sëñ Tuubaa yi ñuy def màggal gi màggalu Sëñ Tuubaa la su ko defee daa wax nañu toilette toilette mobile yi ñëwul loolu xëy na manque de nu la tuddati la coordination la waaye xam nañ seen pas-pas xam nañ seen yéene xam nañ yéene président Macky Sall ci sëñ Abdou Makhtar xam nañ yéeneem ci Daaru Xudoos kon ñuy ñaan dayo yi nga xam ni jox nañ ko màggal yooyu nañ ko jox màggal gi dara bañ cee màggal bu ëllëg bu ñëwee fi du suñu ko waxati loolu rek laa amoon ci loo xam ni maa ngi koy wax di sant te xam na ni sëñ Moustapha nee na sëñ Ahmadou euh, fas ya sëñ Amadou Mahtar féete woon waajuram wa nekk taalibe nekkam jëwriñam foofee rek la ko féete moog lu bokk ci kër sëñ Baara incha allah fas yéene nekk euh, jëwriñam ci kër sëñ Baara ndax nee boo kenn wax xalifa moom jëwriñ si amul Mahtar la ci guy bind ñun ñëpp itam fas yéene ànd ak yéen ci màgg ci la waaye góor nañu sant leen gërëm leen bu baax ñaanal leen. comme ngeen ko waxee rek pour lépp matee. député wàllu sécurité bi li ngeen si wax si nit ñi daanaka noonu lañuy defee rek d'habitude effectivement commissaire ak ay agent am ak supérieur am ñooy xool par rapport ak mbooloo mi ñëw si màggal gi ñu xool naka lañ fa war a taxawee si wàllu nit bërëb yi ñuy war a jël ak bërëb yi xam ne fa lañ war a eh, taxaw yépp si wàllu barrière tamit dégg na nombre bi ngeen wax si barrière dañ ko jéem a matale incha allah li nekk tubaaw effectivement du ko mat mais ni ma ko waxee sànq waa Thiès bu ñuy ñëw renfort yi bu ñuy ñëw nañu indaale ay barrières ñu jéem a def tout pour mën a am barrières yi xam ne moom ngeen soxla muy 300 barrières. bi ngeen wax tamit si yoon yi pour que gendarme yi jàppale si nit ñi si circulation bi parce que gendarmerie dina def sa dispositif spécial si wàllu woowu tey suba incha bés bésu màggal bi si jamonoy màggal bi dinañ def dispositif spécial si yoon yi pour mën a yombalee ñi xam ne ñooy jàll te tamit ni ngeen ko waxee dem kontaan nañ si. bu amul surcharge kenn toogul si kaw euh, lu ñuy faciliter bu baax liggéey bi la parce que surcharge ak toog si kaw moom dañ koy tere totalement totalement tolérance amu si donc mais bu amul surcharge amul ku toog si kaw leneen yi xam ne nag problème circulation yaakaar naa dañ ko mën a yombal ku nekk mën a ñëw màggat fi delluwaat si jàmm te benn jafe-jafe doon noonu tamit na ko douane nar a defee si wàllu donc marchandise yi dañ leen jàppale def leen lettre boobu je pense que dina si baax pour directeur général des douanes wala ministre de l'économie et des finances waaw hmm? comme ça ñu transmettre ko directeur général des douanes mën ngeen yem foofu comme mu joxee instruction ñun si région bi dinañ mën a lijjanti ak waa région bi ba lépp du dox ba si direction régionale bi sax mën nañ ko xool directeur régional bi mais bu nekkee dafa jëm si yeneen région yoo xam ne bokkatuñ sax direction léegi xaw a foog mu yéeg ba si directeur général des douanes moom it je mën na bu baax Touba xam na fi bu baax a baax a baax xam na da màggal bi eh, bu ngeen ko laajee ay ndimbal dina leen si dimbale bu baax a baax ñu mën a am circulation facilité si circulation marchandise noonu itam si wàllu sapeur pompier xanaa 100 éléments yi ngeen wax dinañ ko mën a joxe wala ñu jege ko am nañ compagnie euh, à Touba parce que am na ay éléments yu xaw yu doy yu takku quand pour mën a assurer sécurité bett màggal li ñu ko laaj ambulance tamit dinañ joxe ambulance bi incha allah. ñoo ànd ak waa santé donc complété ambulance santé yi muy trois ambulances comme ni ñu ko daan déployé bu santé indee deux cinq postes avancés yi tamit dañ ko indi dañ ko installé incha allah ak médicament yi doon jàppale effectivement sëriñ bi si wàllu màggal bi renforcé tamit centre de santé Daaru bi xam ne moo yore essentiel lu liggéey bi si bésu màggal bi waa hygiène tamit ñu déggee ko noonu donc dinañ def désinfection si kër yi ngeen jox leen liste kër yi euh, commune bi jàppale leen ci produit ak ci carburant donc ñoom am nañ nit ñi am nañ matériel bi pour désinfecter ni mu leen ko waxee ñu lëkkale koo tamit màggal gu ñu mag gi bu ñu ñëw après pour que ñu mën a liggéey ñaar def ñaari liggéey yi ba xam ne bu ñu paree ci liggéey bi day nekk continuité bu liggéey màggal gi xam ne ci lañ jëm euh, noonu tamit ci saupoudrage bi ngeen wax tamit euh, xool nañ ko étudier xool vraiment nañ ko mën a réaliser xam ne peut-être boo ko defee dina bokk toujours liggéey màggal gu mag gi xëy boo si paree dootul soxla nga si dellu soit wala boo si dellu soit tamit du du mel ni mu war a kii du yaatu ni mu waroon yaatoo parce que defoon nga l'essentiel liggéey bi hmm? waaw groupe électrogène tamit foog mu am mënul ñàkk daal parce que manifestation yi mel noonu moom foog mu am groupe électrogène du panne kenn xamul fu muy jógee même ak assurance yoo mënti am yëfu machine la mën na paan bu paanee te amuloo groupe électrogène day indi musiba ah yàqu manifestation totalement donc foog mu am groupe électrogène bi si wàllu hydraulique tamit dégg nañ ko finalement li disponible mooy cinq citernes ak six bâches souples waaw effectivement néew na lool dinañ jéem a xool vraiment ak euh, waa euh, waa lu ñu mën a renforcer ba ñu mën a am bâche souple yi gën a bëri ak ak citernes yi xam ne moom gën demandé muy donc 10 citernes ak 20 bâches souples wàllu service du commerce donc euh, contrôle denrées yi contrôle prix yi je déjà dañ koy commencé fekk ñu ngi jëm si màggal Touba yi approvisionnement euh, marché yi waaw te loolu tamit day fekk déjà ñu commencé mesure yi pour dugg si màggal jëm si màggal bi donc euh, yaakaar naa ne ñaari côté yooyu yëpp ñaari fànn yëpp commencé na si veiller pour que vraiment ñu mën ko def na mu mënee na mu war a matee ba xam ne pomme de terre du manqué parce que moom lañ gën a ciblé fi mu ne nii mais beneen denrée tamit du manqué et que njëkk yi xam ne moom la état fixé tamit ñu ko.